maitre El Hadj Aya Boun Malick Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yaay secrétaire généralu syndicat bi ëmb liggéeykat yi nekk ci wàllum justice di SYTJUST jamono ji da ngeen a décrété quarante huit heures di banque seen loxo lan mooy problème bi réelement waa ñun suñu problème ñi ngi ko am ak ministre de la fonction publique mi nga xam ne dafa am taxawaayu muusantu foog ne mën nañoo nax ndaxte ñun duñ ko bind xal pour gaaral ko ci benn mbir liñ ko doon gaaralee mooy lu ñu doon jéebaane ñi nga xam ne duñoo am fitu sopar ñi ndogalu gouvernement bi nga xam ne dafa jëmoon ci defar statut travailleur de la justice ndogal boobu li mu waxoon mooy greffier yi duñu leen di yóbbu A2 bu ñuy dem A2 duñu kenn former beneen bi ñu ne personnel bi li ñuy leen li leen di euh, tàbbal ci corps bu bees bi ñuy wax corps assistant des greffes des parquets te buñ ciy dugg soxlawul benn formation ci kaw loolu bi gouvernement bi dogalee loolu ci gannaaw loolu ay nit ñu nekk fonction publique ñoo xam ne mosu mësuñu nangu réforme yooyu ñoom ñu am fitu soppar ñi mbir mi ba xam ne léegi dañ ciy dugal ay formation yoo xam ne ministère de la justice amul doolay taxawal formation yooyu ndax dina nekk lu ëpp juróom-ñaar téeméeri nit yoo xam ne lu leen war a te ministère de la justice amul sa euh, yitte yooyu ñuy wax daal gouvernement bu xasee ba décider benn mbir amul kenn koo xam ne war na am sañ-sañ ak fitu soppar ñi ko loolu nag bañ ko loolu lañ doon gaaral ministre de la fonction publique pour mu jël ay ndogal yu nga xam ne soppar ñi yooyu ñu dugal si ndogalu gouvernement bi duñ koy dindi ba mu set bu ko defee greffier yi mën dem A2 hiérarchie personnel bi ñu mën leen tàbbal ci corps bu bees boobu ñuy woowee corps assistant des greffes de pro euh, des des hmm. waaye suñu problème mooy dafa mel ne ministre de la fonction publique dafa lang ak yàqkat yooyu ñu doon jéem a jéebaane taxaw taxawaayu yàqal ñu. bloqué ñu fii ñu nekk ba nga xam ne réforme bi daal du ñu jëriñ dara bu ñu deful ndànk duñ koy xeeñcu rek waaye duñ ko mës a gis. mu mel ni sax ci wàllum reclassement euh, greffier yooyu li euh, mu jëm ci hiérarchie A2 euh, yéen a ngi reproché surtout ministère bi mu bloqué lu ni mel. waaw mooy li ma doon wax léegi rek parce que dafa am nit ñoo xam ne ñi ngi si kilifteefu ministre de la fonction publique te ñoom ñoo sopi ndogalu gouvernement bi te gouvernement bi moom la mu waroon def def na ko ba pare dogal na nee na greffier yi nañ leen yóbbu A2 te bu ci formation am euh, euh, personnel au ministère de la justice nañ leen tàbbal ci corps boobu ñuy wax corps assistant des greffes des parquets te bu ci formation am waaye ñële am nañu sañ-sañ ak fitu fekk kilifa yu mel ne gouvernement bi euh, dogal dara ñu koy soppi soppar ñi boobu nag ñu soppar ñi tubaab di ko falsification moo indi problème bi léegi biñ ko waxee ministre de la fonction publique pour mu jël ci ay dogal pour que loolu dañ ah moom day gis nañu dafa taxaw mel ne dafa làng ànd ak yàqkat yooyu ngir yàqal ñu bloqué ñu si fa ñu nekkoon loolu daal mooy problème bi nga xam ne am nañ ko ak ministre de la fonction publique moo tax tey ñu taxaw def deux jours grève pour naqarlu ko ñaawlu ko. ci loolu sax jot ngeen am ay daje yoo xamante ne euh, ministère de la justice fonction publique ak yenn ci représentant SYTJUST loolee lan moo ci tukki waaw euh, nu mu tuddati semaine bële weesu am nañu ndaje ak sunu ministre de tutelle muy ministre de la fonction publique euh, de la justice ah ñun biñ ko gisee waxtaan nañu déggoo nañu gis nañu ne comprendre nañu comprendre na sunu mbéba te mi ngi taxaw taxawaayu saafaraal ko ci kaw loolu moom préparé na benn projet de décret boo xam ne ah day dindi ah, formation yooyu waa fonction publique dugalool ci ndogalu gouvernement bi léegi nag jox na ko ministre de la fonction publique pour mu ah, yóbbu ko ci président mu signé ko waaye ministre de la fonction publique dafa lànk loolu bañ ko def loolu kon problème bi nekkatul ci ministre de la justice ba ñu dajeeg moom ba pare leeral na ñun la àndal ñun la faral léegi nag mu def ministre de la fonction publique dajeeg nañu moom ajuma ajuma bi ñu waxtaanee moom ba pare ah yaakaaroon nañu la mu jàppoon bàyyi na ko mais démb gis nañu ba mu defee déclaration fële ci assemblée nationale la mu nekkoon ma nga ca taxaw ba mu gën a dëgër tey looloo tax nag ñu fas yéene taxaw jàmmaar la ak moom. Mm. ndaxte ñun syndicat lañ nag kenn du ñu ñëw teg ñu loo xam ne neexuñu ñu koy nangu kon boog looloo tax ñu manque ñaari Euh, bañ ko liggéey nekk ko defee ko def ko grève ngir naqarlu ngir ñaawlu li nga xam ne ministre de la fonction publique mi ngi koy wéyal. tey jii lan mooy solution bi nag ngir ngeen mën a dellu ci seen liggéey. waaw solution bi foog naa mbir mi fii mu tollu il faut que njiitu réew mi président de la république wala premier ministre mi nga xam ne mooy njiitu gouvernement bi dugal ci loxoom ndaxte toll nañu foo xam ne li blocage dëgg la ministre la fonction publique ni ñu ko gisee. dafa mel ne daal dafa làng sax mbir mi da ko mujj jël def ko ay mbiri boppam ay mbiru li tubaab di wax mbiru personnel loolu moo tax daal gëm nañu ne foog nguuru jiitu réew mi wala premier ministre mi nga xam ne moo jiite gouvernement bi dugal ci loxoom pour lii mën a am euh, saafara. très bien alors euh, maître El Hadj Ayaboun Malick euh, euh, jërëjëf. jërëjëf. may fàttali rek na yow yaay secrétaire généralu syndicat bi ëmb liggéeykat yi nekk ci wàllum justice di SYTJUST maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax.